rajo Leral 96.1 Dakar 100.4 Kaolack 87.8 Mbacké Touba 93.1 Ziguinchor rajo Leral encore plus proche de l'info. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo. fii ci leeral TV Mbaye Badiane ci seen émission jataayu transport di wax waa àdduna asalaamaaleykum di wax kilifa diine asalaamaaleykum rawatina sëñ Muntaxa ñu ngi koy nuyu bu baax a baax euh, di nuyu waa Tiwaawan Njaasaan ba ci jàngu bi di nuyu permis carte grise tey nag télé bi dafa déplacé wu ñëw ba fii ñuy wax Souleymane Baal fekk si sunuy sunuy mag waaye itam euh, fekk si fi waa transport kon ki ñuy jox nuyoo bi muy presse maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaare di la ñaanal jàmm di la dalal jàmm ci télé leeral ak mbay Badiane ci seen émission jataayu transport. bismillaahi rahmaani rahiim salaamaaleykum wa rahmatullah mbay Badiane ñu ngi lay dal fii ci Souleymane Baal di wax ne gannaaw buñ ñu sante yàlla julli si rasulullah alayhi salaatu salaam di ñaanal seen Mountakha Bachir yàlla yàggal ko fi ak tous les xalifes généraux di ñaanal waa réew mi yëpp kilifa diine ki fa aada di ñaan jàmm ci suñu at suñu Sénégal gii di nuyu nag waa Souleymane Baal euh, membre di bureau ah le doyen tous les responsables rek kenn ku ne ñu ngi mbay la dalal ak jàmm fii ci Souleymane Baal di ñaanal aussi suñu chaîne bi leader bi mu nekk l'une des meilleures chaînes dans le monde entier bisimilah. kon dañuy wëlbatiku rek suñu loxo càmmañ di wax uh, suñu mag suñu xarit Mamadou Amadou Dia amadu Dia ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziare la dalal jàmm ci leeral TV ak seen émission jataayu transport ak mbay Mbaye Badiane asalaamualeykum wa rahmatullah du nuyu waa Leral TV ci action bu rafet bii ngeen def dellu di nuyu garage bi yëpp jël sama nuyoo bi teg ci loxo président président moom moo boote njaboot bi yëpp ak lu transport la nag njaboot gi mu boot yëpp ak lu transport la ñun ñëpp dañuy yëngu ci mbiru transport salaamaaleykum. kon damay wàññikuwaat ci président Kara Kara nag tey damaa ñëw. seet si la ci sa biir kër bëggoon a xam sa kër dëgg-dëgg nu muy demee ak sa kër nan nga ko sosee tey ba mbooloo mi tey ci sa ginnaaw topp ci sa gannaaw. waaw mbay Mbaye Badiane ñu ngi lay ziarewaat di nuyu tous les quatorze régions du Sénégal permis carte grise rek ak ce qui est transport rek ñu ngi lay nuyu di la ziare di leen wax ne leen tey ñëw nga fii ci Souleymane Baal Souleymane Baal nag boo ko waxee mooy fu neex a présenté c'est l'une des garages les plus disciplinés fii au niveau de Souleymane Baal boo ñëwee Souleymane Baal donc boo ñëwee au niveau de Souleymane Baal di nga fa fekk ay imam di nga fa fekk des technocrates di nga fa fekk maanaam des des des des intellectuels di nga fa fekk maanaam daal Souleymane Baal daal li fi nekk yëpp daal mënu façon type chauffeur boo bëgg rek boo ñëwee Souleymane Baal di nga ko fekk. y a des jeunes le à ma gauche là bu waaye c' est le plus jeune secrétaire général Abdou Ndiaye moom daal di présenté sama ginnaaw boo xoolee c' est le doyen le chef de garage Baye Assane Diouf moo nekk na la sama ginnaaw bu ma euh, ñu ngi souhaité aussi suñu vice président dafa xaw a malade tuuti mais ñu ngi koy ñaanal un prompt rétablissement di ko ñaanal ñëpp koo xam ne rek sa yaram xaw naa suuftan rek ñu la ñaanal nga kii di ziarewaat ñëpp rek di dalalaat ñëpp rek ne la Souleymane Bal daal mooy mbooloo mii nga gis mu yaru mu nangoo liggéey mu gëm seen bopp ñoo xam ne daal bu ma doon wax si yow si ñoom comme bu ma doon expliquer lan mooy Souleymane Baal émission bi day jël temps bi yëpp Souleymane Baal daal la ngi nii rek yaa ma gën a xam on avance. kon Diop Ibrahima. jaa Dia Amadou Dia. léegi euh, man fi may doore ak yow Amadou Dia bi may doore ak yow mooy bi ñuy ñëw ci yoon bi euh, dañoo gis ne dañoo jaare côté polisu Géejawaay euh, waaye. taliba na mu yàqoo doy na waar rawatina nag fii ci virage bi nga xam ne mooy virage Souleymane Baal mu nekk ab jafe-jafe boo xam ne nii sëfoor yi am nañ ko mu yaatu lool ci dëkk bi ja waaw sëñ Mbaye loolu moom dinaa ci sawar tontu lool parce que gis nga virage bii nga gis nii plus de vingt ans nii nii la mel plus de vingt ans police ba audi piscine bi virage bi da ngay tudd fu mu nekk virage baa ngi nii Souleymane Baal boo tourné virage bi nii à gauche à droite yaa ngi jëm Souleymane Baal dem station ba nga tourner à gos nga jot préfecture bi jot police Guédiawaye jot poste Guédiawaye jot Sonatel jot SDE ba jëm stade ba mais pour te dire ligne boobu amul tali bu baax suñu caramère suñu rotili suñu lépp yàqu na fii parce que ñun fii lañ dëkk bu ñu xëyee fi la ñuy jaar pour génn bu ñu wàccee fi la ñuy jaar pour duggaat kon mun ñu ko éviter dafa am yoon yoo xam ni c'est inévitable mënoo ko éviter ñun bu ñu xëyee ci karang-karang ji la ñuy bu ñu wàccee tamit ci la ñu dugg te Guédiawaye dafa bëri ay jafe-jafe du fii kese BRT bi ñu ñu construire c'est très bien c'est très bien baax na lool mais couloir yi ñuy defal dafa sew couloir bi man su may daw vélo bu moto bu may romb day mét sama rétroviseur te chauffeur yi topp yëpp mën nañu seede lool couloir yi sew na bu benn oto paanee ñeneen ñëpp dañuy taxaw di ko xaar oto crevé ñun ñëpp dañ koy taxaw di ko xaar na nañu améliorer couloir bi nag ba ñaari oto mën fee jaar parce que jafe-jafe transport dafa metti ñun lu ñuy dund ñun ci transport ñun ñi nekk ci secteur bi ñun ñoo ko xam muy man keneen ku ma joxoon micro bi lii ma lii may wax lay wax. jërëjëf jërëjëf président kon dañuy wàññi ko ci yow Kara Kara ba tey ñu ngi ci biir kër gi fii ci eh, garage Souleymane Baal ndax njaboot gu mel nii jiite leen yombut waaye ndax njaboot gi seen ay bëgg-bëgg ci seen avancement. ndax loolu say xalaat bokk na ci parce que nag sëfoor bu ñuy wax avancement bokk na ci mu am oto boppam bokk na ci mu feebar faju bokk na ci bokk na ci bokk na ci Kara. waaw comme au niveau de Souleymane Bal na bu ñu nee bu def nañ. waaw bu dee au niveau de Souleymane bu dee def nañ lépp wax nañ lu ñu neex yaa am na nag fu ñu am na nag étape bu ñu toll ndax bi ñu jël Souleymane Bal capital nee lañ ko jëlee déjà Souleymane Bal la avancé deux pas dem même. du mener un pas mais on a avancé deux pas ndax on a des cartes grises on a des comptes bancaires maintenant mais chaque chauffeur a véhicule foofu àggaguñ fa mais ñu ngi ciy travailler te ñu ngi ñaan yàlla étape boobu yàlla dimbali ñu ñu àgg foofu pour cas les cas social ñu ngi ciy dema ñu ngi ciy ñu ngi ciy dem ni ci ni ci tous les garages yu demee wala garage yu bari cas social leer na ma ni Souleymane Bal avancé avancé wuñ ko si loolu moom mooy point boo xam mën naa la ko mën a waxal baal euh, maanaam yéen da ngeen a jékki-jékki sos garage bi wala da ngeen koo njëkk ci ay nat ay cotisation dañoo bëgg na xam foofu nu mu demee parce que ah garage bu sosoo ba màgg ba toll nii donc am na fu mu commencé ba ëgsi fii merci beaucoup Mbaye euh, permettez-moi aussi me remercier le directeur de l'école là kii ñu yaatal bañ toog fii yàgg fi lool Souleymane Baal sosoon suñuy mag ñoo ko sosoon ñun dañoo ñëw yeggali am na suñuy mag yoo xam ñu ngi sali Fallou Ndiaye mi ngi Touba dafa jël son repos instant mi ngi dëkkam ak euh, ainsi de suite ñu bari am na si xam ne mais xam naa le temps moo leen permettre ñu ñëw ñoom ñoo ñoom ñoo dooroon Souleymane Baal bi ñu ko dooree mais bi ñu ko dooree association la woon ñun ñoo ñëw porté Souleymane Baal def ko GIE ñun ñoo ñëw porté si suñu loxo la jaaree ñu def ko GIE boo gisee la euh, am na ay papier papier yaa ngi nii dans mon catalogue gis nga ko nii Souleymane Baal lépp lu GIE lu lu regroupement di am rek. Souleymane Baal am na ko naka Souleymane Baal am na ko kon donc ñi commencé woon ñu ngi leen di remercier mais ñun am na fu ñu toll aussi am nañu jeunesse boo xam ne tey jii ñu ngi derrière nous leer na ñun fu ñu toll fu ñu yem rek ñoom danañ fa danañ danañ danañ fa àggale Souleymane Baal incha allah jàpp naa ne Souleymane Baal ça sera l'une des meilleures garages du Sénégal. Mm-hmm. incha allah ci kàttanu yàlla. Mm-hmm. kon damay déglu damay euh, wàññeeku sama loxo ndejoor euh, léegi ma ñëw ak moom ci biir transport ndax am na ay jafe-jafe safoor yi di ko dund jooy bi di benn ab jooy. ñëpp ne transport yàqu na léegi transport lan moo koy defar pour mu jàkk ndax CIE yi bari na président regroupement yi bari na cadre unitaire baa ngi fi tasaaroo nañu déggoon naa nag wala ma for ci wewu bay ñu nekkat ñoom ñi ngi leen di defare pour ñu ànd doon benn ndax transport dañoo sonn sa for si sonn nañu daanaka boo xëyee léegi sa taxi lañ ca daan am amatoo ko ndax jafe-jafe goo xam ne nii tey mi ngi ci dëkk bi loolu bëggoon naa nga andil ma ci ay leeral. waaw sëñ Mbaye loolu dinañ ci sawar tontu parce que transport ñun ñi nekk ci secteur bi yëpp xam nañ transport doxatul bu doxoon à cent pour cent léegi ñun ñoo ci à quarante pour cent te lu ñu ko teg suñu dirigeants yi ci lañuy ñu parce que dañoo ñëw indi ay application indi fi Yango. indi fi X. indi fi Yassir. indi fi yeneen ak yeneen. te yooyu yëpp suñuy concurrence lañ te ñooñu concurrence déloyale yàlla. war gaynde ngi fi yooyu yëpp ay concurrent clando yaa ngi fi particulier bu xam ne day xëy liggéey Dakar wàcc yëpp quatre clients yóbbu banlieue yooyu yëpp ay concurrence déloyale tout court mais kooku avec ça ñun nan nañu mën a amee lu ñu doon am ñu ngi ko mën a am te ñun ku ci manqué benn papier non tu as de sérieux problème <laughs> voilà kon prési dégg nga kooku jooy gi mu jooy foofu mu nekk loo xamante ne nii ñëpp a ko jooyandoo yow ngay président bi nekk fii euh, di pousser xale yi di wax xale yi saa su nekk rek euh, nga leen di won yoon wi pour ëllëg ñu ñu mën a ñu ñu mën a ñeme yoon bi nu jëm ndax ku la jiitu ci néeg bu moo lay wax toogeel nii ñu gis ne secteuru transport yàqu na ndax yow euh, transport bi nga nekk nii nga nekk président tax euh, lan nga xalaat ne tey moo koy mën a defar ndax yor nga mbooloo ca mbooloo mi nga yor tey bu gerew amoon tey eh, yaa sañ ne leen suba oto bu mu daw kon yow euh, loolu nu nu muy demee foofu. waaw maa ngi lay maa ngi leen di waat la grève passée dama leen xëy leen ñu xëy ma leen ñëpp gaare leen ñu gaare tout le monde mbooloo bu mel noonu jafe na lool mais tout ce qu'on dit sur le transport rek actuellement rek am na lu ñu bàyyi lim cité lim xamawut sax moo ko les capitalistes là les clando en ligne les yango it kaay dem et d'autres choses les particuliers comme ça maanaam daal transport daal maanaam dañ koo mbayamal moom maanaam daal suñ jëf daal lañu jël fooyeeku léegi nag li ñuy may ne ñun ñu jëlaat suñu yëf moo ñu def l'union union rek moo ñu mën a moo moo tax ñu mën a gañewaat suñu ñu gañewaat le terrain fii defuñu ko mënuñoo gañewaat le terrain li union bi ni li koy waral mooy intérêt personnel dañ koy bàyyi ñu jël intérêt général xool loo xam ne koo xam ne mu leer ko ni kii transport moo ko ñor dundewu transport ñu jiital ko bu ñu def leen ñu def bu nañu bàyyi leen ñu bàyyi loolu rek moo moo ñu dese. est-ce que jàpp nga ne tey sëfoo euh, fi mu toll nii. ginnaaw gisul loo xamante ne nii mën na faj ay rongoñam est-ce que ñoom jotutit nag ñoom ñu walantewu seen walantewu bopp est-ce que jotul parce que safoor neexul waxal balaa ngay xam safoor neexul waxal nekkal weer bu dee nga laaj ko 1000 francs mu génn maye di 5000 francs moo koy gën a yomb joxe 1000 francs boobu est-ce kon tey kooku mën nga wax lu dugg ci boppam ne ko kat tey gasoil yokku na suba ñu ñëpp nañ xëy taxaw loolu jafe na fi de. non actuellement mbéjam karam la actuellement nii ce qui se passe dans ce pays là ñoom ñëpp xam nañ ko tey ji bu ñu xëyee ki xëy ki daan xëyee Géejawaay di dem Dakar mais gis na lim doon lim mu doon demee actuellement nii da ngay gis ku xëyee fii taal otoom ba àgg ba àgg Sacré-Cœur wala nga dem ba town doo sax yëpp doo yëpp client te lan moo léegi nag le mal est trop profond li koy waral mooy maanaam ñu ànd ànd gi dong moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu sauvé munu fekk ànduñu munuñoo am li ñu bëgg ñoom nag jël nañ suñu yëf mais nag man j'ai toujours l'espoir parce que j'ai des la jeunesse qui est derrière moi te man jàpp naa ni gëm naa ni am nañ courage te ñu am fula leen seen bopp gis naa ni daal man gis naa ni on va battre te on va on va gagner le combat incha allah ci kàttanu yàlla waaw loolu daal lay lancer appel à tous les présidents des GIE di ko lancer appel à tout le monde du transport que ñu booloo ànd xeex nanguwaat suñu loolu daal laa am lu may wax. jaajëf kon damay wàññeekuwaat ci sama loxo càmmañ euh, léegi ma am fu ma dugg ak yow xam nga wax nga application yi mais dafa am bu des daa am daa am yeneen yu sew yu des euh, muy oto yi ñuy wax ay yaas. ak yenn daas yaa yu bees yu génn ca oto yooyu kenn ku ci nekk sa application wu bopp mu yokk ci application yi fi nekkoon mais ñooñu naka lañ def ba am ko naka lañ def ba am seen application bu bees fan lañu affilié wu ndax mooy ay yaas mooy Toyota yu bees yi dañu am seen application bu bopp euh, oto yi nga xamante ne ñi ngi euh, ci rond point ñu génn fan yi di weer si journée OMC euh, ngi seen application wu bopp lañ yor loolu nag di dugg ci seenu biir di ñu yàqal di nu yàqal kon waaw ana sunu njiit yi wala ana ministre de transport wala dañoo am ay ministre de transport yu baree bare baree bari parce que nag fi ne nii jaaxle naa man Mbaye Badiane waaw sëñ Mbaye kooku moom bu mu la jaaxal nee naa la au début suñu dirigeant yi la parce que dara mënut a dugg ci réew te dirigeant yi xamuñu lu ko fa dugal ñun suñu kër gi li fu dugg buñ joxamul dara dinañ ñëw ne président lan mu lu dugg ci kër gi fan la jaar ba dugg fi gars wala bu ñu amoon lu ñu jaaxal tey ci kër gi dinañ ñëw ne président lii dugg fii li ñu jaaxal lan la. mais la question est dans leur cas. oui parce que comme li nga wax am na ay yasira ngi fi yaangoo ngi fi yeneen ak yeneen nañ fi chose ñooñu tey jii bu jant bi sowoon ñu romb fii taaluñu ñu kenn du leen jàpp man tey ji su ma rombee bu timis jotee bu ñu noddee timis su ma taalu Vendôme dana am sanction kooku damay gis ne foofu injustice fa. te ñun suñu ministre des transports dafa démissionné. waxaat ko. suñu ministre des transports dafa démissionné. Mhm. non il faut oser les dire tant son sont suñu ministre des transports dafa démissionné démissionné mooy am na ay application yi fi nekk application yi xëy na seen i revenu ñun ñoom revenu yi ñuy indi ñun ko moo tax amaluñu leen njariñ mhm. xëy na ñoom revenu yi application yi ñun amaluñu leen ko moo tax ñun amaluñu leen njariñ bu bari te nag quoi qu'on dise ay sénégalais lañ de. du bon teint ñun ñëpp. ay Sénégalais lañ mënoon nañ def comme ni ñëpp di def. oui mënoon nañ def comme ni ñëpp di def. di jaar sur le court chemin non non ñun dañu bëgg jaar sur le droit chemin luy avancer Sénégal ci la ñuy xëy ci la ñuy gont ci la ñuy fanaan. macha allah. Mmh. kon jàppoo ne ministre de transport ndax su ma déggee ni nga ko waxee nii dafa mel ni seetaan nañu est-ce que xeebul transport. non que xeebu ko. xeeb transport dafa xeeb transport. xeeb transport mooy ñun consi amuñu considération bokk pour te dire en grosso modo ñun considéré dañoo déconsidéré dañoo déconsidéré xam nga nit ki moom bu la déconsidéré da lay multiplier par zéro. mais loolu am na lu koy faj de. ñun xam nañ ni ñu koy fajee. ok parce que ñun fii koo fi gis mooy li ma la wax ñun ñëpp ay sénégalais koo fi gis am na carte d'identité am na carte électeur te am na une grande famille bu nekk sa ginnaaw. sa ginnaaw fii ñëpp ay responsable lañ de ay responsable ku ne. am na une grande famille bu nekk sa ginnaaw te boo def leen ñu def boo ne bàyyi leen ñu bàyyi ñun nag du ñu sang menacé wuñu kenn. yuuxuñu kenn mais ñun ñoom moom suñuy carte. te ku ñu seet si wax ak ñun. ñu wax ak yow ku ñu waxal ñun ñu jàpp suñu naam. kon presse yi dégg ko daa mel ni moom fi mu jàpp dëgër na. macha allah waaye itam euh, dañuy gën a encouragé ñi nga xamante ne tey ñooy axlu transport muy kilifa yi nga xamante ne tey euh, dinañ dinañu déglu message yi di jàll ci leeral TV. ndax leeral TV dafa jóg spécial jagleel safoor si émission émission bi mi ngi ko tuddee jataayu transport fayeeku ci benn dërëm dafay ñëw def ca yàlla tax bañ na ko ba rajo bi rajo sëfoor si rajo taximaan yi la ko tuddee kon précis loolu lu rëy la waaye li ma lay laaj précis ah euh, nga bokk ci ay regroupement yu bari groupement yooyu nga bokk chaque jour euh, groupe boo ci dugg rek da ngay dégg bii ànd defar transport bi nangam nangam bii nangam nangam ba léegi fa ñu nekkoon la ñu nekk buuse wuñu maanaam li ñuy wax dafa ëpp jëf ji léegi naka la ñuy def kon ban solution moo am. dama ne woon ñun ñun on est dans la dernière virage comme ce que ce que j'avais vu tout à l'heure nee naa la ñun benn cartouche lañ dese benn cartouche bi ñu dese maanaam mooy ñu mbooloo rek moo ñuy sauver suñu booloowul rek maanaam am nañ problème ndax maanaam ñun dafa am ñu dugg suñu biir kër jël suñu yëf te dañ leen a dooleel ñi leen dooleel mooy. le ministre des transports et les, le chef de l'État et son gouvernement ñoo dooleel ñi fi ñëw les capitalistes là ñoom ils sont venus avec des sacs remplis d'argent ñëw dugg si réew mi jaxas suñu transport léegi nag ñooñu ñun ñoo leen di ñun ñoo li ñu mën a def mooy maanaam ñun dañuy ànd xeex ni leen lii la fiy jógee ndax suñu yëfa ku jël sa yëf fekk la sa kër tey jii maanaam boo xoolee les cag-cag la les le le le les les les les comment dirais-je les les modola pare si gars yi xeexuñu de dañuy seetaan. mais ces gens là ah, mais ñoo xam da ngeen a xëy rek cëppee leen ci kaw tali amuñ immatriculation amul lan amul benn identification loolu si trans secteur transport lañ ko sañ a def léegi nag la problème qui se pose mooy ñun dañ bàyyi wax ci te jëf si nga bu wax faju dara fi ñu war a toll actuellement nii mooy ñu fexe regroupé wu ànd xeex li ñu war a xeex jël suñu yëf ndax te ji maanaam nit du dugg sa kër fekk la fa jël sa yëf ba pare. bàyyi la noonu comme ça. ndax ndax dinaa gis euh, borom moto yi ñuy joteeg taximaan yi lu baree bari ci tali bi bi may ñëw nii rek euh, sama caméraman Pa Omar mi ngi nii di ma di dégg li may wax bi ñuy ñëw léegi ci VDN 3 bi borom moto bi day duble dajeeg taximaan bi yàq na par sogom ba yëpp. Euh, ba pare euh, dina yàq liggéeyam ca tey fi mu toll nii moyen cinq rek cag cag-cag yi wër ko cag-cag maan yi wër ko ca taximaan yi tey bu ñu la rombee yow yow yow mi doon ab taximaan comme ñoom nga am problème du ñu taxaw kenn ku ci nekk da ngay yàkkamti dem ñaareel ba taximaan yi du ñu dimbalante ci seen biir man Mbaye Badiane maa ko wax parce que damay dog ci tali bi di gis li xew ci tali bi ñaareel bi bala ngay xam ne taximaan moo yàkkamte amal weccet hmm. problème mu mo ne duñu la sax wecci Mbaye merci beaucoup foofu nga wax solidarité bi am ci cag-cag yi wala ci ñeneen ak ñeneen amul ci taximan yi en ce moment la mais à l'époque taximan kenn bu kenn yabu ko woon à l'époque taximan kenn daaw ko agressé mais nag dañoo rax te jii maanaam ñuy dundee transport bokk ci trans ñëw bokk suñu te duñ maanaam di dundee transport te bokkuñ si dafa bari mais bu njëkk taximan kenn daawu ko laal vendôme bu tàkkaan guddi ñëpp taxaw sunu mag ñi ñu ngi leen di ñu ngi leen ñu ngi leen di remercier kon ñun affaire bi warut a ñëw si ñun yàqoo si ñun ñun ñoo war am suñu fula ak suñu fayda ba si taximaan boo gis mu am problème nga taxaw assisté ko bu ko motor cag cak laale nga taxaw assisté nit ñi taxawee nga taxawee ko on est plus nombreux que te nag ñi si ëpp sax c'est des étrangers am na si ay cag-cag maan yoo xam boo leen xoolee dëkkuñ sax si réew mi boo xoolee ce qui s'est passé à Karak ki rayoon suñu xale boobu leen boo xoolee c'est pas sax un ak yeneen ak yeneen di am fii ci réew mi ñoo xam ne dëkkuñ suñu réew bokkuñ suñu transport te transport maanaam daal yàlla nañu yàlla jàppale daal ñu gën a gëm suñu bopp daal di xeex lii bu jógee fi te ñu ànd boole xol yi lu ku kenn ku ne li nga yéene sa bopp nga méenee ko sa morom foo gis sa morom am difficulté même crevaison da nga koy def si si si yenn euh, euh, yenn lieux yi gars yi lay romb bu njëkk l'accident da doon ñëw fekk moromam ta euh, kii mu taxaw taalal ko lumière wala mu taxaw sede ko daal di koy jàppale ba mu dem mu daal di avancé wu te kenn ku ne boo xëyee si kattanu yàlla li nga war a jël rek ngay jël kon nañ nañ nañ nañ nañ doxal nañ nañ ànd ak te xam ne incha allah lépp lu ñu bu ñu bu ñu àndee rek luñ luñ luñ songu daan ko luñ songu daan ko incha ci kàttanu yàlla. Mm-hmm. parce que euh, damay gis euh, damay gis euh, ne tey taximaan bi sax dafa dem ba ŋaañu ma leen nag parce que maak ñoom ñooy dundu dund. dundandoo affaire bi man ci laa bokk. du ma leen mus a parce que samay doomi ndey lañ parce que ñi ma seet si ñëpp ay taximaan lañu di sama ay nawle mais damay dama am lu ma nemmee ko it ci taximaan yi ñu yóbbante ma ko dinaa ko wax fii ngeen dégg ko muy ay malaat yoo xamante ne nii parfois dafay am ay malade yoo xam ne dañuy am. tak ñu jël ñu ñu yónnee pour ñu jëlal leen taxi. mais taxi bi euh, kooku nee na bu fekkee taximaan bi ñëw na ba xam ne malaat la day yokk prix bi ba nga xamante ne danaan malaat laa yor lim ma fayee ko jaral na ma ko. ñaareel ba ba ca topp mu ne taximaan yi euh, am na ñooñ boo leen nee malade laa yor damay dugg ci biir hôpital bi taximaan ba day bañ est-ce que loolu c'est normal ça ça c'est anormal parce que souvent man maa ngi rappelé wu un jour il y avait dix à quinze ans benn femme maa ngi ko fekk au niveau des Parcelles Assainies muy arrêté taxi ànd ak benn femme boo xam ne war a dem euh, centre de santé bi nekk Patte euh, d'Oie Builders Nabi Choucair femme bi dafa war a accoucher arrêté na plus de taximan maan mu arrêté ne la euh, femme baa ngi maanaam nekk si état bu doy waar ku mu nga bañ bi ma yegsee la may arrêté juste ma yëg ma jël ko biñ agréé juste biñ wàccee la naan ma renouvelé woon naa numéro taximan yu bari mais dinaa leen dinaa leen dénoncé. parce que geste bi ñu def ak yow geste bi nga def wuute na gis nga taximaan da nga jabar si kër wàcc yaay ci kër wàcc sœur ci kër kon être humain nga doomu aadama nga li li dal waajoo tey jii maanaam ba mu jël la ne am dama am problème dama am malade wala am li loolu da nga koy xool sa bopp da koy nat sa bopp ce maanaam am na état boo xam ne fu ñu tolloo da nga koy dimbali te yàlla tax loolu mooy geste te te ma la majorité des taximans nag ñu baax ñi duñ ko def ah ñi koy def mooy ñi ñu rax ñu xamut ni mu demee man de sama oto y' a certains gens yoo xam ne nii accouché nañ ci sama oto à plusieurs reprises dal na waaw te loolu xam naa ni man leer na ma mbooloo mii toog fii ñoom du ñu doxee noonu loolu moom ça c'est sûr et certain on a un intérieur ah te xam naa ni man jàpp naa ni daal yare ñoom daal wuñu noonu daal fii daal man jàpp naa ni jeunesse bi fi nekk ak maanaam mag ñi fi nekk ndax mag ñi moom ñoom ils sont hors ñoom moom def nañ lañ war a def ñun ñoo si tool te xale xam naa ni ñoom doxewuñu noonu kon ñi ngi lancé appel à tous les taximan a même ku taximan sax képp koo xam ne yaa ngi daje koo xam ne tey jii maanaam ku feebar la wala ko am maladie wala ku am kaneen kaneen jàppale ko te yàlla tax te payu suñu borom moo ëpp solo lépp ndax xaalis bi day jeex te maanaam suñ suñu borom payam moom maanaam euh, du jeex ci kàttanu yàlla loolu moom ñu ngi koy naqaru ñun bu baax ak di di ko di ko méttulu merci Mbaye. si Kara ñu ngi lay jaajëfal bu baax waaw mbokk ma am fu ma dugg ak yow. Euh, ma am fu ma dugg ak yow euh, muy tey ci visite technique laa jëm ak euh, woote yi nga xamante ne gars yi dañ koy woote soxla visite mu jafe leen lool ba ngay dem ba da nga ciy fere ay 3000 francs doo ko jot serveur bi ñaareel bi dafa am dañ ne woon biis yi dañuy wàññi Versailles yi biis yi léegi moom bu baax li may wax dañoo wàññi wersaay am na yu biis yooyu dañu wàññi wersaay yi est-ce que ñooñu ñu wàññi seen i wersaay léegi bu ñu demee ak visite technique ñooñu ñu wàññi dañ leen di fay dañ leen di fayal ndax dañ leen di fayal sarwo bi ak biis bi nga xamante ne dañu dindi ay wersaayam mu war a dem passé ji visite technique xam nga bu demee dafay fay nombre de places yi est-ce que yoon laati mu fay ko ba ca assurance ba sëñ Babacar gis nga li fi nekkoon moo fi nekk ba tey mën nañu éliminer Versailles yi ngay fay soixante dix places ba tey catégorie euh, assurance bi ngay fay nombre dëpp ndax assurance ba nga doon jënd moom ngay jënd ba tey gis nga fii li fi nekk dañ ko ñemewut a wax mais il faut ñu wax ko. parce que tamit am na lu xam ne c'est à dénoncer. Mm. ñu ne tey jii dañuy fa dañuy tere téléphone au volant. Mm. suñ moo di dawal ne nii portable am. am ku ko gis na ko noo seeral tout bi ngay daw yaa ngi téléphone au volant ñu am ñoo xam ne dañuy liggéey teg seen application di ci liggéey te kenn du leen wax dara deux poids deux mesures ñu bëri xam ngeen li ma leen di wax dañuy teg seen application ni seen parabrise di ko manipuler di daw naan maa ngi maa ngi jàdd naa gauche jàdd naa droite fu may ko ñu ne ci immeuble ba nga yegg si parfois nga romb ko mu leer ko ne kii moom kese ne ci oto bi mi ngi communiqué ak appareil bi mais doo ko jàpp mais Mor bu jëloon appareil bi teg ko ci nopp bi wala def nii bu wàccee ñu ne ko seeral day fay contravention xam nga nag deux poids deux mesures yooyu moo ñuy filtré moo ñuy filtré parce que xam nga nit ki lu ko filtré dafa yomb parce que tey ji mu nekkee man damay daw lu ma dal ñu sanctionné ma kii di daw nekk ci anormal lu ko dal ñu ne ko bàyyi mu jàll loolu xam nga neexul. neexul est-ce que njortoo na it ne euh, ndox dañ fi amoon lu fi jaar ba jàll muy suñu grève bu metti boobu fi amoon. Euh, ñu teg fi ay points yu riis points yi di dox cent pour cent mais tey dafa dem ba points yooyu dafa jeex takk la ñu amoon amatuñ ko. dafa mel ni sax ñi nga xamante ne ñi ngi ci tali bi tey fit ba ñu amoon pour sonal safoor tey lañu ko gën a am ca ba tey jooy yaa ngi fi mënut a deñ. xam nga lu waral du ñu appliquer du appliquer la loi parce que comme li nga wax point yi ñu ko tegee au tout départ ñëpp dañuy appliquer loi bi porte bagage ñu ko yemale source nombre amatul ñuy daw heure di génn heure du dugg heure mais xoolal dañoo dem tuuti xam nga lu waral loolu mooy li ma la wax tey jii yàngu tey jii wargaande bi. bu toogoon fii ba 23 heures bu gisee kuy dem Saint-Louis da koy jël man bu ma toogoon fii ba 21 heures ñu tàggame sama mbokk ma nekk Thiès du ma mën a génn. lu tax. parce que li ñuy wax muy muy ta muy taxi. muy taxi muy ci waaw muy ci taxi. ok man bu tey bu ma toogoon ba 22 heures 55 nekk Thiès ñaanu ma ko yàlla daal def choc ma mën a du ma ñemee génn oto bi te yaa war nga ne mën naa toog ba 0 heure nga ne ko yóbbu ma Saint-Louis mu yow jóge yow dem Saint-Louis. waaw mooy deux poids deux mesures mooy wax dañ ñoo seetaan mais nag ñun xam na ni ñu fajee affaire problème bi xam na ni ñu ko fajee te duñ ko wax ci kaw ñu ngi liggéey ci suuf ñu ngi liggéey ci suuf bu baax a baax a baax ñu ngi liggéey ci suuf ñu ngi liggéey ci suuf de ci suuf waaw ñi ngi fii ci Souleymane Baal euh, seet si safoor yi nga xam ne ñoo fi nekk ci seen émission jataayu transport ak mbay Badiane ñu seet si fi président Kara mu sañse sañse bu rafet macha allah ak weeram yu jekk waaw Kara euh, Kara dafa mel ni ginnaaw Souleymane Baal ndax am nga beneen ndombal tànk waaw non au niveau de Souleymane Baal moom li ma fi takk takkuma ko fa de ndax mais nag je suis membre de l'AIBD et membre de Ratramos aussi ñaari ndombal tànk bokk naa si membre laa ci Ratramos Ratramos mooy regroupement des chauffeurs modernes du Sénégal membre de AIBD là aéroport international Blaise de Diass que je salue tout le monde là ñi ma fa bàyyi suñu waa parents yi ne foofu ñoom Pa Modou Fall le président Omar Diouf tey waroon na ñëw seede fekke ci émission bi mais tey le quarantième jour sa maman koy ñaanal la euh, suuf sa di kawam di ziare suñu yaay yi ñun ñëpp nag di ziare particulièrement ma maman tu ma beaucoup aidé soxna Yacine Loum di ñaan yàlla yàlla yàlla yokk fanam di ñaanal suñu yaay ñun ñëpp rek yàlla yokk seen i fan ak suñu papa yi ci barke Nabi Moussa barke Cheikhul Khadim bu mu duggee ay AIBD nag damay nuyu suma waajur yi ne foofu yëpp ak suma frères yi ak suma parent yi ñoom maanaam leeral ne mooy seen télévision ndax ku jël lu toll rajo maanaam tuddee ko askan savoor yi ñoom nga ko tuddee. foofu boo dee wax chauffeur la classe foofu la franchement ma deuxième famille donc c'est ma deuxième ngi lay jaajëfal bu baax di la wax ne la foofu tamit am naa fa membre laa fa membre laa ci Ratramos waaw Mamour nga fa ndax euh, euh, dégg naa ay aéroport AIBD amoon na ay yëngu-yëngu ay AIBD amoon na ay yëngu-yëngu yëngu-yëngu yooyu lañ bëggoon nga wax ñu ci tuuti rek mu mën a jàll message bi. waaw AIBD yëngu-yëngu yi. la am moom mooy daanaka li am fépp rek mooy la concurrence déloyale boo ñëwee au niveau de l' aéroport boo gisee boo yegsee rek à l' arrivée rek am na des voitures de luxe yooyu gis foofu ñu ne la c' est la classe qui sont devant nous qui nous da ngay da ngay teeru client mu génn na la gisuma la je ne te vois pas nga ne ko ngi si ginnaaw de mu ne la man oto yi laa fi gis oto yooyu ñoo taxaw suñu kanam ñu ne c' est des voitures de réservation mu leer na foofu ñu taxaw du seen place. ci parking ci parking payant bi la ñu waroon a dugg bàyyi taxi derrière eux boo duggee biir AIBD da nga fay fekk ñoo xam ne dañ leen di wax des porteurs mooy ñiy jël clients yi di leen génn bagages yi di génne clients yi ak bagages yi ñooñu kenn ku ne maanaam am nga sa xarit ak clando booy jox say clients les monnayeurs ak ainsi de suite même les yi dox sax am nañ accès si clients wu AIBD yi les chauffeurs sont tellement fatigués là-bas tellement boo gisee maanaam semaine passée nag ou bien dans 15 jours la li fa am am nañu am nañu am nañu am nañu une légère euh, euh, évaluation ndax am na benn lieutenant bu fa ñëw fan yi franchement niñ gis ni li am AIBD ak la ma fa doon dund fan yee passé am na y a une une grande différence franchement parler kooku moom ñu ngi koy saluer ne lii nañ am continuité ndax boo amee continuité xaj na taximaan dinañ ci gis seen bopp mais da nga gis ay taximaan yoo xam ne daan nañ def 24 heures à la AIBD ou plus de ça te duñ yëpp te ay clando ko doon teg gars yoo xam ne bu ñu ñëw chaque avion bu wàcc. ñu ñëw ba jëkk ba jëkkante gars yi jël seen i client dem ak ñoom à n'importe quel prix bu ñu ñëwee paay euh, bu ñu ñëwee jël client yi dem seen yoon nga taxaw foofu jusqu'à la nuit doo yëpp nga fanaan bu bët setee ngay doo ko yëpp boo ko mën dem sa njaboot des gens qui dorment là-bas te dara tegu leen ko rek lu dul concurrence bi fa am. ok taximaan it am nañ beneen jafe-jafe foofu de. mooy ci ay AIBD bi ca loolu dégguma benn yoon yéen ñi njiit yi foofu ngeen saafara ko. tey boo amoon sa client mu woo la ne la 23h30 ma jël si nga quitté fii 9h. boo demul parking foo gaare ci aéroport foo gaare dañ lay jàpp ba da ngay ñëw ba ci ODCAV bi e sel bi nga gaare foofu sàndarma yi dañuy dugg ba foofu ñëw jàpp si la loolu itam war ngeen koo jooyal taximaan yi parce que c'est pas normal taxi bi ñëw jënd gaz waalam wala mu ñëw taxaw ci biir station di xaar heure ba jot mu dem jëli client am mais da ngay dawal sa oto ba ci biir station bi ñëw jàpp ko man loolu am na ñu ma koy réclamer ay yooni yoon loolu itam yéen kilifa yi war ngeen ci wax parce que man mii jàpp nañ ma fa sama oto day sofe fa ma taxaw di di ubbi radiateur bi fa lañ ma fekk ramasser samay pièces yóbbu ko brigade gendarmerie ma woo benn syndicaliste bu mag dama koy wax muy Mut Njaay syndicaliste keroog moo moo woote ne ma nanga xool kan moo fi nekk wala toogal ma woote mu woo kafa nekk dama toog ci salle bi dañoo waaxu ba ñëw ne ma ana Mbaye Badiane ma ne maa ngi nii ñu ne ma am say pièces mu Ndiaye syndicaliste moo def loolu loolu war ngeen ko jooy parce que c'est pas normal. mais au niveau de l'aéroport souvent boo ñëwee boo duggee ci station. kenn wuru la fekk parking bi moo seer waaw la fekk ci station di la jàpp. kooku moom c'est anarchie la station moom nit wuru faa dugg stationnement ñu ñëw fekk di la jàpp mais alentour sur les. sur l'autoroute foofu dañuy interdit stationnement boo xoolee arrêt stationement interdit la foofu foofu dañ ko interdit moom am na foo xam ne nii boo fa taxawee moom bu ñu la jàppee kooku c'est toi qui mais am na foo xam ne nii moom boo fa taxawee boo boo bu ñu la jàppee loolu jaay doole la bu dee ci station la wala foo xam ne nii t'es bien garé mais dafa am côté boo xam ne nii moom arrêt arrêt wala stationnement interdit moom ku fa taxaw moom bu ñu la jàppee loolu moom yaa yaa yaa c'est toi qui as fauté ndax chauffeur aussi war na xam fi ñu koy tere ak fi ñu ko dul tere. loolu war ko xam parking payant bi aussi dafa am certaines heures yoo xam ne nii boo ko fa defee di gàttandu te avions yi souvent ils sont en retard léeg-léeg avion ne damay ñëw heure tel def def daal di def day am souvent ça arrive léegi loolu mooy indi léeg-léeg gars yi di dugg si parking bi di génnaat mais loolu incha allahu rabbi ah lépp lu ñu ci mën a waxtaan ak gars yi bañ mën leen bañ mën gën leen mën si jàppale ñu jàppale lañ si ci kàttanu yàlla incha allahu rabbi parce que dafay am solo vraiment taximaan yi ci ñi transport sax laay wax ci liy doxal réew mi ci la bokk ndax bu doxalutal réew mi ba nëga ni euh, waxatuñu ay waxam mais nag comme que sunu kilifa yi dañoo toog la ñu war a def defuñu ko ca sëfoor si néew nañu doole ndax seen ak néew doole mooy li ñuy wax dafa ëpp seen seen jëf moo tax problème yi ñu am rek ñu am ko ndax sëfoor yi ni ñu toll Euh, biñ fi rayee muudu jonn mu jonn bu njëyeen sirax bis boobee la ñëpp waroon a taxaw liñ bëgg ñu am ko mais defuñu ko fan yi am na ku ñu dóor birig ba damm ay faaram man keroog dem naa waaw dem naa fa keroog suur boobu dem naa fa ab cag-cag man la doon joteel beneen moroomu cag cag maan jël birig dóor ko ko ci faar yi mu foto yaa ngi fii ak man li may wax leer télé laay waxe lu leer naññ la kon damay teg sama baaraam foofu wàññeekuwaat mais gos ginnaaw bi ma nuyoo sama mag gi mu ju baax ji Mor Sey Diop non jëlal micro bi moom mooy tëj euh, ginnaaw bi ma ko nuyoo siyaare ko bu baax ndax moom kenn la ci man moom maas Diop ak sama mag ju baax jee nga xam ne mooy pate Ndiaye wala ak ñëpp ñi fi nekk rek maa ngi leen di jaajëfal waaw mag euh, fi may ñëw ak yow mooy euh, fi mu ne nii tali ndakaaru yi ginnaaw bi nga waxee jàmm euh, jafe-jafe yi nekk fii géejawaay BRT bi mu ngi ubbi ñu tegaat ñu beneen jafe-jafe boo xamante ne nii buy jàll gis nga inconvénient bi muy def buy jàll ñëppay taxaw mel ni drapeau Sénégal bu ñuy yéegal ñëpp taxaw ñu am sañ-sañ tali yi ñuy jàmbat ne am na tere yoo xamante ne nii tere tere yooyu war nañ ko cee def ca defuñu ko ci ca tere tere yooyu dafay dimbali safoor tere tere yooyu dafay dimbali safoor kon lan nga gisaat ci loo mën a dolli jafe-jafe bu am ci tali yi ci biir Dakar ginnaaw jafe-jafe Souleymane Baal ak Géejawaay. waaw mais sëñ Babacar di la wax ni biir Dakar jafe-jafe yi njëkk am mooy stationnement tey jii da ngay dugg ci benn rue fekk ñu gaare ko gauche droite yow taxi bi ñu la pis nga laal pédale frein waaju toll fee ñëw na la perle kooku jafe-jafe la. bu ñu doon gaare gauche baa ñu droite ba bu ñu la arrêté da ngay mën a serrer à droite wax ak sa client tranquillement jël ko mais bu ñu la boo boo boo siggee boo ko gisee boo jëlee boo demee da nga jël contravention loolu jafe-jafe la. 30 secondes ma jox sama mag mu tëj. di la wax ne tamit jafe-jafe yi Dakar war nañu sakkal kàmb yi ak pax yi yaa kàmb yi bëri ñu defaratal ñu tali yi ñu tali daal moom suñu jàmbat mu ngi yàq suñu oto yi bu baax a baax a baax a baax joxal ma sama mag ju baax ji Mor Say Diop euh, xam naa li ñu dese ci ay minutes bariwut 4 minutes moo ñu dese Mor Say euh, maa ngi lay nuyu bu baax sama mag ju baax ji di la nuyu ak di nuyu waa Leral TV yëpp ak sa cameraman yi nga àndal yëpp leen di waaw waaw euh, euh, kon dañoo kontaan bu baax bi ñu ñëwee fekk si leen fii nga xam ne mooy Souleymane Baal nekkin bi rafet lool euh, nga tëjal ñu ko ci 40 secondes nekkin bi daa rafet lool macha allah ban jafe-jafe moom nga nemmeeku boo xamante ne nii man nga mën a danoose ci télé bi. fii moom nekkin bi li tax mu rafet bu la yàlla joxe njiit loo xam ne nii dafa bëgg ngóor ba pare. lu mu am bokk ko ni ñi te fépp foo xam ne yaakaar ne bu fa sëriñ sëfoor demee jariñu dina fa dem pour indi loolu lu mu dégg loo xam ne bu ci sëfoor demee itam jariñu itam dina ñëw wax si ko du ko nëbb du kii tey li nga xam ne jafe-jafe waral jafe-jafe gaaraas nga am njiit loo xam ne nii dañuy lañ leen la ngeen seq dañ koy jël di ko aakimoo di wut ñu ciy àndal ak ñu ciy àndal mais loolu daluñu dalut fii ci Souleymane Baal dalut itam suñu président bi ak ñi nga xam ne ñi ñoo nekk ci ginnaaw ndax kenn ku ci nekk la nga yor waxuma la alal ji nga xam ne ñoo ko bokk mais alal ji nga xam ne ni yow yaa ko moomal sa bopp sax boo san ni sa ginnaaw ñoo jariñoo ko mais pas yow li nga xam ne ni askan wee ko bokk kon moo tax fii ci école Souleymane Baal vraiment amuñu benn jafe-jafe ci garage bi moom wax dëgg kas yàlla ñi fi nekk itam doon ay gune yoo xam ne ni yu jàmbaare lañu yu am jom bëgg seen bopp itam nu ngoo liggéey itam tey bu président noonu suba na oto yëpp taxaw kenn du xëy. merci beaucoup jërëjëf kon ñu jox sa secrétaire. secrétaire général euh, nuyu naa la Abdou Ndiaye. nga dañoo bëgg ci une minute rek euh, nga nga xool euh, looy tëjee ndax comme télé bi daa déplacé wu ba fii ca télé bi ak rajo bi lépp safoor la kon secretaire maa ngi lay nuyu di la wax looy tëjee ci une minute. sëñ Mbaye maa ngi lay delloo nuyoo bi di la siyaare aussi. di am mbégte contentement ci teewaay bi ngeen teew fii pour ñëw fekk si waa école Souleymane Baal fii ci seen garage vraiment comme li grand yi wax nag muy président ak Amadou Dia daanaka tënk nañ lépp transport li ñu war a wax lépp wax nañ ko vraiment kon li ci des mooy maanaam comme li nga xamante ne bii mooy état bi li nga xamante ne bii moom la ñu war a jàppale mooy maanaam dimbaluñ ci tali yi nga xamante ne bii maanaam yàqu na ak li nga xamante ne bii mooy jafe-jafe chauffeur yi muy chauffeur amul retraite man gis naa fi suñu ay baa yoo xamante ne bii biñ fi nekkee ba jóge fi dañoo ñibbi dem toogaat fii lañ nekk man daanaka mën naa ci cité ay mag yi mag yoo xamante ne bii fii lañ nekk sama kanam voilà kon daanaka loolu moom euh, maanaam ñi ngi koy dénoncé bu baax a baax pour chauffeur yi maanaam ñu jàppale leen ci ba nga xamante bii kenn ku ci maanaam euh, jóge ci li nga xamante ne bii mooy yëngu yi mm. boo demee fa nga nekk mën a am ci loo jàpp ndax chauffeur benn amul ci loo jàpp boo retraité waaw kon ñi ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne daal maanaam uh, ñi ngi leen di ñaanal yàlla defal leen tawféex leeral TV maanaam leer na lépp daal ñu gën a leeral lépp yàlla baax na. jërëjëf jërëjëf kon ñi ngi tàggoo tàggoo bu dul tàggoo précis di wax ne ba beneen yoon temps bi jeex na tàkk temps bi jeex na tàkk tàkk tàkk tàkk li duufoon ci nag bi xaju ci kon ñi ngi leen di tàggoo tàggu bu dul tàggoo di jaajëfal sama caméraman Pa Omar di Moodu Fall moo nekk ci wet gi di nuyu nuyu programme waaye maa ngi koy nuyu macha allah di wax ne maam Thierno Birahim Mbacke newoon na waaw nit koo gis rek muy dem am na lu mu gëm kon yéen li ngeen gëm yàlla incha ma nga ca ma nga kon Mbaye Badiane la woon seen émission jotaayu transport macha allah ba beneen yoon ci seen beneen numéro asalaamaaleykum merci beaucoup rajo Leeral 96 point 1 Dakar 100 point 4 Kaolack 87 point 8 Touba 93 point 1 rajo Leeral encore plus proche de l'info